Sénégal qualifié coupe du monde war a football suba euh, ban yëg ngeen ci am. xanaa kontaan ci rek sant yàlla bu baax di ñaan mu yokk waaw ndam li daal la nu soxla. kontaan ci rek te xam nañ ne dina ñëw incha allah coupe bi moom dina ñëw waaw nañ def ndànk-ndànk nag Sénégal yi nañ bàyyi njëkkalante bi nañ bàyyi njëkkante bi ñoom ñooy wub équipe bi wax ji moo bëri. Ah. souvent sénégalais yi dañ naan waykat yi dañ leen di yàqal la plupart yow tey boo doon jàngat waykat yi way équipe nationale par rapport ak qualification non xel moo yemul nit ñi ñu éducation la rek du dara waykat bi bégte moo tax muy way ak kontaan li mu yëg ci xoolam loolu rek la mën a génnee man mi du ma waykat du ma footballeur mais dama ko bëgg xam nga waykat yi moom war nañuy wàññi lu ñuy def tamit parce que équipe bi ñin dañ cee war a jàpp waaye équipe bu damagul fenn ngeen nekk fii di ku nekk naan équipe bi équipe bi yooyu daal war nañ koo wàññi. li ñuy wax ne woykat yi di wax ne eh, kaaroo kaar ay cat la yooyu yëpp ay bidaa la ñoom bu ñuy woy dañuy woy pour encourager supporter équipe équipe nationale bi loolu tax ñuy woy. waaye mënul yàqal équipe nationale dara. waaw ah, ñooñu yàq eh, kii joueurs yi parce que lu ñuy woy woy après joueurs dañuy gis seen bopp quoi ñoo dañuy fan après dañuy fan ñoo jël coupe du monde bi alors que quali dañaa qualifié ba pare jëluñu gum dara. Ah, ba tey boo doon yaakaar Sénégal fan la war a yem coupe du monde da koy jël wala quart de finale wala demi finale. waaw même bu ko jëlul sax na sëri même bu ko jëlul na sëri bañ xam ne sëri nañ waaw équipe bii ma gis man wax dëgg yàlla. ku leen jàppale ñuy dem. incha allah coupe bi rek doon bëgg soxla wuñu leen loolu coupe bi moo ñu tax a jóg quoi man mi sax suba damay dem incha allah. mais du yomb de. du yomb war na yomb. suba Sénégalais nu ngeen fas yéene demee stade suba. ah man de bu ma añee maa nga fu bu neexee yàlla ci kattanu yàlla ak ku ma mën a àndal samay doom sax du ma leen bàyyi naa leen déglal bee bu neexee yàlla. man kay suba suba tey moom damay liggéey waaye suba moom walaay ndekkee incha allah. parce que ne def gars yi groupe ñun ñëpp ñu dem rek parce que ne bégal suñu joueurs yi yàlla def ñu may ñu ndam incha allah ñu féete ko Sénégal. ànd ak suñu équipe gunge ko parce que dem ba léegi lu may wax gars yi nii leen talaata bu kenn añi ñun ñëpp na leen tase stade nu teg cadre yi nu añee fa togg def lu ñuy def naan gunge sunu équipe mu gagné nu ànd ak moom ëmb ko dugal ko biir néegam ñu dem su néeg tëdd nu ñaan yàlla jàmm.